Fall Assalamualaikum mbokki Grand Yoff coalition Yewwi Askan Wi ànd ak wàllu Sénégal bu président Abdoulaye Wade ñun ñoo ñëw tey ci commune de Grand Yoff ñoo fësal suñu juróom-ñaari tànneef man Barthélémy Dias may tête liste départementale ma ñëw Anda ak Sering Abo Mbacké Thiam bu wàllu Sénégal bu PDS ànd ak Abass Fall bu Pastef ànd ak Babacar Mbengue bu Hann bel mi ngi ci ginaaw maa ngi ànd ak Ndiallo Bathily mi ngi nii suma ginnaaw maa ngi ànd ak Fatou Ba ñu ngi ànd tamit ak ku ñuy woy Gouda moom tamit mi ngi ci ginnaaw ñun juróom-ñaar yi ñun tànneef yu coalition wàllu Sénégal ak yeewi askan wi tànn ku mën a toogal askanu Dakar ci assemblée nationale du Sénégal mbokk yi nag lu ngeen namm moom lañu ñu namm mooy mbalit bu nekk ci assemblée bi moom lañ fa bëgg a génne sànni ci biti mbalit boobu nag mooy mbalit buy jaay ay passeport diplomatique mooy mbalit buy trafiqué ay faux mooy mbalit bu bëgg a ab góor jigéen ci assemblée nationale mooy mbalit bu nekk ci assemblée nationale di xuloo di xeex di xaste ak di saaga mbokk yi na ngeen ko déggee noonu ndakaaru bi fii ndax am na rafet waaw ba pare dañuy ñaan yàlla di ko sàkku ci yéen na ndam bi gën a yaatu élection mairie yi ñu ngi leen tumba fii cent mille voix écart

Dakar match du fi am Dakar combat du fi am Dakar c'est plié c'est gagné c'est verrouillé kon nag ku ko mënul dégg loolu na la yàlla may xoolu muñ wante mbokk yi Macky xam na ñun xam nañ te yàlla mën na seede moom il est au Sénégal dam ci kaso bi génnee Karim ci dëkk bi téye kartu xale yi indi ay caaxaanu paganage Mon côté joxone 58% élection présidentielle pour 2019 2019 à 2021 58% donne est 42% donc Macky sait très bien qu'il est minoritaire dans ce pays minorité nak kuko dom ci deug bi da ngay nag cohabitation cohabitation bi nak mom ñu ñu ak yeen mbokk soriwul de parce majorité loi bu ñuy ñëkk woté ci nationale mooy loi buy wàññi dund bu cher bi dund bi dafa cher lu ko waral mooy puukaree bu Macky Sall nekk ci dëkk bi mbokk yi moo xam ceeb moo xam diwlin moo xam suukar moo xam mburu moo xam gaz moo xam courant moo xam essence loolu leen mun ci laal su doon jar cent franc na ngeen ko déggee noonu cinquante franc yëpp ay taxes démb dégg naa benn waaye ñëw fii di ma bëgg a soi-disant faire la leçon ci essence dans mon de litre essence, je me bats chez moi. Je donne 800 francs. Ça, il bouquet les sables, ça, nous raffiné comme vous voulez. Litre boulet, il y a entre 360 et 380 francs. L'outil de boulet a une taxe de l'agrément. Alors, le commandant, moi, pour que les boulets qui s'en aient. Parce que là, on ne va pas gagner des aéroplanes. Le gouvernement 50 ministres, le gouvernement ambassade, le gouvernement agence. Alors, le chalice. mooy tax ñu mën a doot nekk xaalis boobu nag fan la koy jëlee suñu poche la bëgg a dóor ñoo lànk ñoo bañ moo tax ma leen majorité bi suñ ko amee mën nañ wàññi dund bi parce que ñun nekk ñu ci aéroplane wutuñu cinquante ministres wutuñu ay ambassades yu ñu jeex wutuñu wutuñu te nammuñu loolu may wax ci mbokk yi dama ne Mali bii balaa ñuy tëj frontière bi seen camion yi di doon jógee Mali Bamako ñëw ba ci port bi. ñoo yëpp si fi essence yóbbuwaat ba Bamako te ba tey essence Bamako ça coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal loolu su nekkulee ay taxes lan moo tax ma ne leen dund bi dañ koy wàññi te mën na nekk moo tax dama ne na ku nekk jóg dem wote parce que majorité bi tey ñun ñoo am majorité Macky Sall il minoritaire beneen voix beneen loi bu ñuy fas yéene wote assemblée nationale suñu yàlla mayee ndam licence de pêche

tabax TER baax na tabax BRT baax na tabax stade baax na wante assainissement tamit am na solo moo tax ñu ne lii di assainissement état su demee ba am ay milliards du dul jeex pour pour pour dem tabax yi dina saxaar war na am ay milliards pour dugal assainissement ci dëkk bi te xam ngeen fu may waxee leneen lu ngeen xam ne tamit dañ ko fas yéene diggante bu féete boor su ñu amee majorité assemblée nationale incha allah dañuy fas yéene

di leen di bu ñu jàpp fa ñàkk seen bakkan ndax lan namm ci ñoom lenn ñu wax du ñu xamut ñu wax du ñu fekkut wala ñu wax du ñu yëgut jëmale ko ci Ousmane Sonko di ñu ay bokk ci élection oh loolu ñaaw parce que dañu gàggal Khalifa Sall dara fekku leen si ñu gàggal Karim Wade dara fekku leen si ñu ne maintenant kan mooy dese Ousmane Sonko mooy dese lan la ci nama troisième mandat troisième mandat boobu nag mbokk yi

31 juillet ma bëgg a wax ci leer ku mu neex ànd ak ku ko neex ku mu neex jàppale ku ko neex képp ku fi woteel Macky Sall ak njabootu Macky Sall yaa ngi dooleel góor jigéen Sénégal képp ci askanu Sénégal ci dundu bu soo ñu dund ah, képp ku fi woteel Macky Sall ak njabootu Macky Sall daanaka yow da ngaa bëgg a yee fitna parce que troisième mandat dañ koy xeex dañ koy kon mbokk yi loolu moo nekkoon kaddu yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant te nga noo xam ma boojoo boojoo yi parce que le troisième mandat dañ koy tere Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen di sant jërë ngeen jëf tête de liste départementale de la coalition Yewwi Askan Wi monsieur Barthélémy Dias moom moo ñëw tey Grand Yoff ànd avec les six autres investis sur la liste départementale de la coalition Yewwi Askan Wi mu ànd ci ak monsieur Abbas Fall mu ngi nii sama wet ànd ci ak le maire Babacar Mbengue ànd ci ak ku ñuy wax Ndiaye Bathily ànd ci ak ku ñuy wax Mbounda Diène ànd ci ak ku ñuy wax Fatou Ba loolu mooy juróom-ñaari juróom-ñaari tànneef yi nga ni ñoom ñoo nekk ci liste coalition Yewwi Askan tey ñëw fii ci Grand Yoff ngir waxtaan ak yéen ci élection législative yi jëm élection législative yi jëm dafa am solo ci Sénégal ndax ñëpp xam na ni ki nga moo fi nekk muy le président Macky Sall dafa bëgg a def troisième mandat te troisième mandat comme ni ko le maire Barthélémy Dias di dañu koy tere léegi nag ngir musal Sénégal ci musiba ngir 2024 élection yi jaar ci yoon te bal du dara du am mooy dañu leen di ñaan ngeen voté la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar ngeen voté ñaari intercoalition bi muy Yewwi ak Wallu ngir Macky Sall bañ a am majorité et ngir ñëw di wax nous voulons une assemblée de rupture assemblée boo xam ni député ya fa nekk du ñu dooleel góor jigéen assemblée boo xam ni député ya fay nekk du ñu fa nekk du xuloo di saaga wala di trafiquer ay billets dañoo bëgg assemblée boo xam ni député ya fay nekk askan wi lañ fay nekkal di voter ay loi yoo xam ne dañ koy def ngir askan wi. contrôler action du gouvernement di def ay proposition de loi ngir liberté yi nga xam ne ñu koy restreindre ñu mun respecter pour yëpp ndax dégg ngeen ñoom Benno Bokk Yaakaar le président Macky Sall ñu ne ñoom ñoo yor justice ñoo yor loi yi ñoo yor lépp et ñëpp dégg na ñu wax la séparation des pouvoirs exécutif judiciaire ak législatif loolu la ñuy jàngal ci école yi ak ci université yi mais loolu théorie la mais pratique de amul Nous bëgg bu ñu le 31 juillet mu am pratique am une séparation des pouvoirs boo xam ni exécutif day doxal législatif doxal li ñuy doxal li nga xam ne mooy judiciaire daal di doxal li ñuy doxal di leen wax ne leen bii ñu jëm dañ cee bëgg assemblée boo xam ni les députés seront des députés du peuple gis nañ Macky Sall muy wax ñuy wax ay forces spéciales jàpp nañ kenn ku ñuy wax mabam dóor ko torturé ko ba rey ko ngir nag dañoo bëgg a takkal Ousmane Sonko ngir bëgg koo jàpp te loolu Sénégalais yi duñ ko nangu loolu xañ na Khalifa Ababacar Sall mu bokk xañ na Karim Wade mu bokk léegi mu ne bii baax naa ko def ci li nga xam ne loolu moo nekk Ousmane Sonko moo waral ñuy wax ne une force spéciale di wax leneen donc bëgg nañu ñu demee assemblée ci éducation ci santé ci wàllu foncier ku ci nekk ñun député yi ñu am ci taxawaay ndax loolu moo ñuy permettre duma duma duma duma gars yi plus de cent waa Grand Yoff xamante pas lan mooy objectif bi dañ leen bëgg duma di leen duma di leen dóor di bàcc di tulli di def lu ma neex ba am ko moo tax ba ngeen taxaw am plus de deux cent mille voix nga xam ne moom la ñu jëm élection législative bi baa ngi nii képp koo xam ni yaa ngi nekk Grand Yoff est-ce que semaine yéen askan bii ngay voté moo xam nga bokk ci wàllu Sénégal moo xam nga bokk Yewwi Askan Wi benn bulletin la jël muy bulletin bi am mbokk muy bulletin bi am biti bi boo ku ko jël votel nga ki nga xam ne moo nekk Ousmane Sonko votel nga Khalifa Sall votel nga Abdoulaye Wade votel nga Barthélémy Dias votel nga PUR ndax ñoom ñëpp ñoo ànd wóor na ma Macky Sall ngir duma ko ba sëlal ko ci moom ñu àndal merci beaucoup bopp seen xarit Bassirou Samb ci ginnaaw monsieur le maire Bamba Diop moo leen di nuyu dalal le maire Barthélémy Diaz wax ji du bari le 31 juillet nawoon fawoon